Euh, euh, maanaam euh, Nelson Mandela Nelson Mandela moo defoon vingt sept jours de grève de la faim Ousmane Sonko mu Sénégal mu sell mi encore tey battre na record mondial ci grève de la faim ndax bi gënoon gudd ñaar fukki fan la ak juróom-ñaar Ousmane Sonko tey def na fanweeri fan ak ñeent ci grève de la faim tey la ko arrêté donc ñun ñëpp mën nañu ndamoo suñu président Ousmane Sonko encore une fois son message est passé amati na ndam vraiment comme ni sénégalais il xamee à travers le monde il n'a pas déçu Il yi partagé le live au maximum pour ñu am waxtaan bu important boo xam ne dañ koy wax tey ni ji tey wax ak ci Sénégal 1800 détenus politiques moo am maanaam junni ak juróom-ñetti téeméer ci ay doomu yi ñu waaw bàyyi nañu ko mel ni Cheikh Baara Ndiaye macha allah borom jëf euh, jëf gis muy suñu xarit bu baax ñu koy nuyu de passage ñu bàyyi ku mel ni euh, sëñ Assane Mbakke muy aussi suñu xarit bu baax sëñ Assane Mbakke di nit ku baax a baax a baax a baax a baax ku ñu xam foofu ci Touba ku nekkoon ci Karim wad mu vraiment xam ne dëgg fi mu féete mu jël ay dëbësam yëpp ne moom dem na pour ànd ak Ousmane Sonko té ma xam ci lu bari ndeysaan ñu doon ko waxtané lu bare bare bare bare assan mbacké ma sha allah momit ñu ngi koy jaajëfal bu baax ginnaw lolu aussi dégg nañu quelques détenus politiques yo xamné Macky Sall bàyyi na fii oustaz wala fa le ben sëriñ waye ñuy ne Macky Sall rek Sénégal du momel, té gis nga aduna bi li mag ñu baax ñi daan wax du kër ndax képp ku fi ñew ci ñun bo gisé ñun ñuy tawat ni tay yalla mo ñuy won dooleem wan ñu ne benn doomu aadama mënul résisté yàlla gis nga Macky Sall li muy def nii yëpp ànd ak ay defkatu ñaawteefam ay ministre am ay généraux am ay commissaire am di def ñaawteef bii di ko teg ci doomu kaw bopp ndoddu sénégalais yi il faut Macky Sall xam ne lii lépp dafay ñëw à une fin maanaam dafay am fu mu yem te foofu muy yem Macky Sall mën na koo neexal wala mu naqaral ko trop parce que gis nga àdduna nee nañu is never too late to change ce n'est jamais trop tard de euh, trop tard de jamais parce que yàlla moo ko wax ci alxuraanam bu tedd bi nee nañu doomu aadama yàlla bu la sàkkee def na ci yow li nga xam ne moom mooy sa destin sa destin man ngaa dem ba ngay def lu bon di def lu bon di def lu bon ba dee jege la nga changer di def lu bax yalla day changer destin bob comme nit aussi man nga di def lu bax di def lu bax di def lu bax ba cay mujjantalu dundu ngay nga soppeeku def lu bon yalla changer destin bobu tamit donc moy bépp doomu adama bo gis rek ñuy ñaan ñu ne yàlla ñu yalla may mujju bu rafet man ki xex ak Macky Sall man na ci tak chaîne 300 kilos di daw ak mom xam ke xex ak Macky Sall mom awma ci ben layam layam te duma ko ñaan ndax ameluñ ko dara te duñ ko jéggalu ndax tooñuñu ko waaye ma koy jox ay kàddu dànkaafu di ko jox kii nga xam ne moom mooy soxnaam si marem yàlla na yàlla yokk gu yaramam parce que gis nañ ko xam nañ ne yaramam neexul et c'est normal loolu nit du ko defulee ñun du ñu defulee ndof ndax yàlla mooy def xel ci nit te xel bu demee aussi yàlla moom moo décidé ne def naa xel ci nit xel bi dem na xel bi ñëwaat na xel bi dem na xel bi ñëwaat na te duma ko ko ñaawale parce que bu ñu xoolee ñun ci suñu kër yi kër yëpp am na kenn koo ci xam ne tuuti am na troublement de de de cerveau wala troublement de xel ñun ñëpp nag ci suñu kër yi kër yi yëpp daf ciy def loolu daf ciy def boroom xel bu baax bi am daf ci def boroom xel bu yëngatu tuuti pour nga xam différence bi yàlla daf koy def ci kër yi yëpp donc ñuy ñaanal Marème yàlla delloo siwaat ko ak xelam parce que première daam la te yi muy def ci Sénégal geste yi muy def c'est trop dangereux pour notre république parce que yenn saa nga gis ko muy def ay geste rey wala mu dem fi ñuy sànne ay xeeru euh, euh, safa euh, falé safar Makka nga gis ko muy def ay ay ay geste yo xamné ne yow da ngay xamné ne kii ak sa mais li lépp nañ ko ñaanal Yalla Yalla may ko wér parce que elle représente une république bu ñu nee Marème dafa dof dañuy ne la première dame du Sénégal est fol bu ñu nee Marème sànni na sërëm dañuy ne la première dame du Sénégal sànni na sërëm bu ñu nee rey na nit dañuy ne la première dame du Sénégal rey na nit bokk na ci li ñu tax ñu dissoudre fondation servir Marème fay Sall parce que mu jugi dafa dem ba xamul fondation bi ci boppam lu muy njariñ Marème man naa jékki-jékki rek ñu ne ko nangam mu ne jox leen ñii nangam ñu dem nangam taanu nangam ci xaalisu fondation dafa dem ba mu gi kenn mënu koo contrôler comme ni ma leen ko waxee la famille Farès ñu dem ba fondation bi di financer ay ay ay kii terroriste maanaam ay association terroriste yoo xam ne Amérique au moins ak France ak ñeneen ñi jàppee nañ leen terroriste man jàppee wu ma leen ay terroriste comme ay Hezbollah ay Hamas ak ñoomin seen Marème Faye Sall dem na ba di financer ay ay association terroriste ku ne Marème fay Sall dafa wér wérul bu leen ko werante ak moom bàyyi leen leen ñoom xam nañu dëgg bi xam nga dëgg moom doomu aadama bu ko xamee ba léegi di ko layam-layame da nga ko koy bàyyi bul fa nekk di werante ak moom ndax yàlla ci boppam moo ñu wax ci alxuraanam bi di nga gis ay doomu aadama yoo xam ne boo leen wàcceloon asamaan si sax ne yàlla moo wàccee asamaan si nii dañ leen a déedéet lii du asamaan si suuf la donc jarul werante ak nit ki xam di tey teelu nañu ñaanal yàlla Marème Faye Sall mu dellu siwaat ak sagoom parce que Marème mu ñàkk sago man naa nekk catastrophe ci Sénégal parce que gis nañ ko ñun ñëpp ci kër sëñ bi masiba naaru laay ba nga xam ne moom la fa Marème Faye Sall def man xam naa ne man ak yow ak samay ak suñuy moroom ñun ñëpp am nañu tiitaange am njaqare am yërmande ci moom léegi ñun ñëpp ñu dem ñu xooli vidéo boobu ngeen jéggal ma ngir yàlla jéggal leen ma Tu veux t'initier au développement web Tu as toujours rêvé de créer ton propre site web à partir de zéro Notre formation te permettra d'atteindre tes ambitions. Fais tes premiers pas dans la programmation. Tu commenceras par créer le squelette de ta page à l'aide de HTML, modifie son design avec CSS, applique la mise en page avec Grid ou Flexbox et utilise le framework Bootstrap. Puis rends ta page dynamique et donne une fonction à ses éléments avec JavaScript. xool leen Marème Faye Sall ah. daan tax da nga xam ne sa giir. xool leen ko. yàlla naa la teral kon nag sëriñ bi waxoon na la ma toog. voilà ñun ñëpp gis nañu Marème Faye Sall mu toog ci kanamu sëriñ Mountakha Mbacké mu xam ne foofu yëpp ay caméra la xam ne ay nit a koy déglu à travers le monde xam ne ay nit a koy xool à travers le monde Marème Faye Sall def ay gestes yu mel nii lu ne mi ngi koy def. mais rien ne nous choque de Marème Faye Sall am na nag suñu xarit kayis foofu yu muy wax yu bari nit ñi ñu bari comprendre ñu ko parce que am na loo xam ne boo ko waxee c'est tellement choquant de cette première dame xam nga yàgg nañ leen wax ay woyof sër ay nangam nangam mais teyu ko parce que xel bi new fa Marème elle est mentalement dérangée Marème Sall xam na loolu Macky Sall xam na loolu ay doomam xam nañu loolu Marème départ na Marème day jékki-jékki même ci kii këru Macky Sall <coughs> muy simmi sër bi di ko sànni di tëñax garde corps yi loolu yëpp Marème fay Sall da koy def parce que àndul ak sagoom day jékki-jékki rek simmi sër bi daw taatu nen ci biir kër gi yooyu yëpp da koy def amoon na fi ay temps aussi defe na waxoon nañ leen ko mooy daaw bi leen ne vraiment affaire bi daf ko daaneel daaneel bu méttee méttee métti boo xam ne kenn xamul woon lan la lépp rek ñu koy ñaanal yàlla yàlla delloo wat ko ak sagom ndax li dal marem man na dal kenn ku nek ci ñun man na dal njabotu kenn ku nek ci ñun donc nañ ko ñaanal jamm rek c'est la première dame du Sénégal liñ leen di wax ni, nenañu leen ñun am nañu ay nit yo xamne dañuy wax ak ñom ci kër Macky Sall lañuy réré marem day jekki jekki rek sanni sœur bi daw di teñex garde corps yi gaay dañ koy japp yi tejj ko wax ak mom comprendre après yenn saa yi mu dimbali ko mu dellu si sakoom yenn saa yi nag mu gën a metti mais ba léegi rek feebar lañ ko jàppee nañ ko ñaanal yàlla mu delloo si ak sagoom li mu defoon màkka fii ñun ñëpp gis nañ ko ñëpp ñëpp gis nañ ko Marème teyul li mu nekkee ak doomu aadama nag am na doole lool te nit ñi xamuñu ko ba ci loolu moo waral gis nañu aussi li nga xam ne moom moo xew tuubaa gis nañu li nga xamne mom mo xew Touba Antoine diom ñewna na wax ay waxu terrorisme yëngal yëngal wax ay waxi dofam genn dem general Moussa Fall ñew wax ay waxi dofam yëngal dem Macky Sall ñew yëngal yëngal wax ay waxam def yëfu dofam dem seigne Bass Abdou Khadir genn wala rafetlu nguru Macky Sall et moi j'espère moi je vais man dina len ne gis ngeen man man anduma ak seigne Bas seigne muntaha nak toujours ma ne yalla yàlla ko fi yagga yalla yagal te wer ndax man gëm ne Touba wala fenen wala ci yam serigne su ndaw ndawan si business bi upu upp doole nyepuli ñepp li lañu lijeenti lijeenti wuñu yalla wala lolu dinañ ci wax ginnaw magal gi bu magal gi jexé ak salam ak salam bañu ñëwaat ñu waxtaan comme nena len leen am nañu ay nit yu fi ne am nañu ay firnde yo xamne yor nañ ko ci suñu loxo dañuy bàyyi màggal gi jàll ak jàmm ak salaam bu jàllee incha allahu rabbi dinañu amal ak yéen ay waxtaan. ndax ki gën a nekk xaritu Marème fay Sall te ñëpp xam ko mu yor fondation muy Soxna Baali xam nañ ko dem naa sax ba jox ko fi ay tur yéen ñëpp ngeen dégg ko ci réseau yi comme ni ma leen ko waxee rek loolu yëpp dañ koy bàyyi ba màggal bi jàll ak jàmm ak salaam incha allah ñuy ñaanal ñëpp màggal ak jàmm ak salaam donc duñ ci rax dara dañuy bàyyi màggal gi jàmm ak salaam waaye xam ne man. gëmuma sëñ Bass Abdou Khadir man gëmuma ko gëmuma dara luy génn ci gémmiñam mais gëm naa sëñ Muntaxa Bachir yàlla na fi yàgg te wér gëm naa ko te gëm naa ne moom moo fii suñu jëwrin moom lañ fi indi pour mu représenter kullu yoonu murit ñu koy ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te wér tey par exemple boo jëlee ay exemple euh, euh, rafiq euh, imaam sëñ rafiq imam rafiq rafiq rafah mbàkke nga xamne ne liko Yalla jangal yep mi ngi koy appliquer ala lettre yalla limu jangal imam Bobu yep mi ngi koy appliquer Nyu lettre ñu am ay nafiq yu melni ni Moussa Fall Antoine ñak jom ak ñeneen ñu ñew Touba di indi ay lendem lendem ci xelu doomu adamay lendem lendem yoyu dañu bëgg rek ñu leralal leen ko fi ma len di indi d'abord <clears throat> moy ay kaddu Ousmane Sonko kaddu yi du at man na ne sax du ñaar presque ñetti at ñaar wala ñetti at la ci ginnaw bu Ousmane Sonko ba mu yëkkatee kaddu yi na ñu yëkkati kaddu yi après ñu dellu ci xol tay li général Moussa Fall di def ak li Antoine diom di def bismillah na ñu ñëw. lañuy waji def moy lan. damay wax sénégalais yi ne acte terroriste bu fi amé Macky Sall ak ñi mu andal ñoo def parce que ci lool lañu nek ci lool lañuy dox attan nañu claquer lo fi bombe créer fi acte terroriste pour ne liñ leen doon wax yépp ngi ni nak daal di gaawantu jël ay pouvoir spéciaux moy dolel Macky Sall ne ko am nga sañ-sañu ku yëngatu nga dóor parce que le pays est en guerre budé ci corona bi rek la fi andi won lool ku yëngatu ñu dóor parce que néna dañ doon guerre ak ben microbe ken gisul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 I'm running the new macOS Ventura, but what's this? The old clutter, those unsorted apps. Should have cleaned it out beforehand. What's the point of installing the best version of macOS on a messy computer that can hardly handle an extra browser tab? Before you upgrade to Ventura, try this app to find megatons of old junk. Download the free version of Clean My Mac X right here. Impressionnez les employeurs avec un CV professionnel de CV.fr et distinguez-vous de tous les autres. Créez votre CV simplement en trois étapes. Remplissez vos coordonnées, sélectionnez un modèle professionnel et téléchargez votre CV. Essayez-le dès maintenant. comme ci kàddu yi nga xam ne moom la général musa Fall wax bismillah te ñuy tëkku nag mais loolu la sama xel dal parce que kii nar jëf du wax am na loo nga xam ni ki ko nar def du ko wax wax ji bari na waaye fii moom yaakaar naa ni kuy tëb di jéem a yàq màggal gi yaakaar naa ni yaa yàqu loolu moom mooy lu wóor ñu nag jël nañ suñuy matuwaay pour loolu ndax saay-saay moom dafa bari pexe waaw mais jël nañ ci suñuy matuwaay te borom bis bi itam yaakaar naa ni ab bisam ñi ne fii ci kaw su tuuti nañ lool pour mën koo yàq loolu moom boo xamee boo xamee dëkk bi ak borom am na loo xam bu ko nit di wax dalay def ree ndax xañ na dañoo xamul ci moom bis bi boo xamee ki moom bis bi nga ni man damay yàq màggalu Tuubaa yaakaar naa ne danga ngaa xamul borom bis bi mooy kan ndax fi mu jaar yaakaar naa ni bu amoon ñu ko mën a yàq ñun du ñu fi toog tey yàlla ko aaral boppam. Eh, ñun nag dañ ci teg suñu loxo nii rek di ko mottali waaye moom ay mbiram aaral na ko boppam ba pare ñu am ci yaakaar loolu itam nag Mbàkke ci yow ci lu bari ci ñaan yi ngay ñaan réew mi ci ñaa jàmm ji ngay sàkku ci réew mi. wala umpul kenn te ñun koy sàkku jàmm rek ñun ngay dimbali parce que ñun bu jàmm amee ñu mën a am suñu bakkan bu jàmm amul suñu bakkan <laughs> day xaw a jafe kenn ku ne gis na réew mi di xew temps yi yëpp euh, ñàkk jàmm doo nga ko indi voilà je pense que ñun ñëpp ñoo déggandoo Antoine Diome mu génn yëkkati ay kàddu dama bëgg a macha allah indi ay kàddu imaam Rafaahi Mbàkke am na ay kàddu yu am solo yum fi indi laataa may sori sax ci conversation bi ñu dem déglu ko bismillah am na ñoo xam ne dañuy dem ba xam ne buur juum na waaye nag ya am ci buur day tax duñ ko mën a wax dañ naan fu mu rek bala moo bank waaw waaye nag musiba buy ñëw du yem ci bopp borom. voilà déglu leen am na ñoo xam ne dañuy dem ba xam ne buur juum na waaye nag ya ñuy am ci buur day tax duñ ko mën a wax dañ naan fu mu rek bala moo bank waaw waaye nag musiba buy ñëw di yem ma bopp borom. dama bëgg ngeen jëlee imam bi rek exemple am exemple xaadim Bousso gis ngeen kii fi mu jàngee foofu la xaadim Bousso moomu ngeen di gis Touba jàngee même xam-xamu niveau xam-xam yi la am. xaadim buusoo xam-xam bi mu am moom la imam bi am la différence mooy imaam bi dafa jël alalu àddina tegee ko nele di jaamu yàlla xaadim buusoo décidé moom jël alalu àdduna bi def ko dëkkuwaay ak moomeel moo tax ngeen gis moom mu doon imaam bi mu doon imam Rafa yi tamit doon imam bi mu doon nañu leen ñaanal yàlla rek ñaanal yàlla yàlla delloo siwaat ki réer indiwaat xelam ci lislaam ki rerul aussi yalla gën ko djubal ci l'islam te yalla musal ko bepp réeréef dégg ngeen imam bi limu wax dafa am solo nak pour ñu wax li parce que imam bi limu wax dafa am vidéo buy circuler vidéo bo hamne, nyunyap ñun ñëpp xam nañ ko te gis nañu tay li xew Touba Touba li fa xew jagina dayo trop Touba li fa xew metti na ndax ñun ñëpp ay jullit lañu te ñun ñëpp gëm nañu ne Touba vraiment dëkk la boo xam ne sëñ Touba daf ko liggéey dafa am lu bari loo xam ne daf ko fa liggéey te dëkk boobu vraiment muy deuxième capitale ci Sénégal Macky Sall ak ay fenam ah ñu gis sëñ Bas toog vraiment comme li sëñ euh, euh, Imam Rafahi wax léegi mu am ay nit yoo xam ne dañuy xam ne sax buur bii li muy wax du dëgg juum na te defe naa sëñ Bass moomu lu ku xam Macky Sall moom moo ko ko war a gën a xam ndax am na nag dinaa leen wax après mafia bi bëgguma leen tooñ nee naa leen bëgguma leen yàqal màggal bi mais mafia bi Touba am na ci benn soxna am na ci ñaari góor yoo xam ne ñoom ñoo wër sëñ bi lépp lu ñëw ñoom ñoo koy séddoo ci seen biir après ñu dem nelawalu xelu sëñ bi bokk na ci ay terrain wu hectares hectares hectares hectares yoo xam ne ñoom dañ koy jaay di partager xaalis bi après ñu daw dem ci sëñ bi pour bu sëñ bi xam ndax sëñ bi mag la ñu yëy noppam am lum ci wax dafa am nag soxna ju ci ne ak ñaari ñaari nit donc loolu damay bàyyi incha allahu rabbi ba euh, kii bi jeex ñu ñëw ñu wax ko léegi nañu ñëw teg lii nga xam ne moom mooy euh, vidéo bi xale yi illustré muy vidéo bu jàggi dayoo ndax Bass Abdou Khadir dafa ne lu rëy la fi Macky Sall def nangam nangam nangam yàlla ñëw weddi lépp nañu xool bismillah sant yi tam ci li nga def ci dëkk suñ tubaab te lépp ma ci seere ci kanamam loo xam ne lu ma xam la muy wér ndax am nga fi fukki at ak ñaar ci yoon waaye jëf nga fi jëf bu bari loo xam ne ku ko ñëwoon tey dana ci bari sax lu ma fàtte

ndax am nga fi fukki at ñaar ci yoon waaye jëf nga fi jëf bu bari yoo xam ne ku ko limoon tey dana ci bari sax moo fàtte waaye bokk na ci assainissement bi fukki at ak ñaar def nga ci loolu ñeent fukki milliards yi juróom loolu jéggi bi kon loolu day mel bu demaatee yar rek assainissement. voilà xale yi ñoo ma ne woon il faut ma fexe lépp lu ma man ma teg vidéo boobu sëñ Bas gis ko. yàlla moo ne du bàyyi wax naa leen ko fii nee naa leen yàlla dafa ne ci alxuraanam bu tedd bi mu ne doomu aadama jullit bu demee ba mënatul wax dëgg gis ay jullit yuy def ay nit yuy def ñaawteef te mënut cee wax dëgg daanaka presque génn na diine lislaam yàllaa waxal lii boppam yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam confirmé waatal ñu ko dafa ne Small businesses are determined and always planning their next move. It's easy with... boo gisee doomu aadama dem vraiment manatul wax dëgg dëgg dem ba dëgg mënatu ko wax ci ab société vraiment ñu ne day dem ba doomu bobo boobu presque génn na diiney l'islam donc dañu bëgg rek ñu tegal leen vidéo bi yéen ñëpp ngeen jugeel ko seen bopp ndax gis nañu li nga xam ne moom moo xew ci Touba Touba ndox mi fa wàcc ak li fa am ci ay inondation musul am ci fukki at ak ñaar yi fi Macky Sall def ren mi Macky Sall demee tàggu sëñ bi ne ko damay dem ba ñu jël ba am nit ku jël ay kaddu diko ko tek diko rakas ba mu set ba ko def héros national Yalla mi dara tawul won ko ne ko li ngay wax ci nit ki de méngoowul ak li nga xamne mom la nit ki def donc ñun lolu dañ koy wax rek te leral ko te bañ cee tuutal ken. wala yab ci ken waye deug mom bu ñëwee comme ñu genn diiné l'islam te kenn bu ma fi won ak naan ma waaw Tunkara sétal Yalla sétal la le déedéet yalla lay ak deug bi mu wax yalla dafa ne bu ñu demee ba ci société ñun ay jullit ñu gis dëgg gis fen nanguwuñu wax dëgg bi génn nañu diine lislaam te kenn du ma génnee ci sama diine ndax damaa bëgg a dee dem ajana kenn du ma génnee ci diine lislaam bi dama bëgg a juddu muslim dee muslim neew ma nag man maa gën ci àdduna bi ndax man comme ñëpp am naa sama ay tolof tolof am sama ay gàllankoor am sama ay xam nga mooy loolu duma nangou ken genné ma ci sama diiné bi kuma bëgg wo di mané ne Tounkara wax ci li bu laal ci lélé xalaatal yow sa diiné sa ak sa yalla yow bu la jaralé nga wax lu dëgg amul problème mais man dina wax dëgg bi ndax yalla dafa né encore une fois bu ñu ba ci diine l'islam bi. duñ ci wax dëgg mu jaral ñu ñuy wax ay fenn bu yeboo rek bu boba ñu bañati mel ni gëm yalla parce que nañu diiné l'islam donc lool la bëggoon ma léralé gis ngeen euh, bu ma leen ne république mensongère dama leen tegaloon kii nga xam ne léegi léegi moom mooy vidéo wu euh, kii nga xam ne moom mooy euh, nu ma ko mën a waxee sëñ Bass Abdou waaye tegal naa leen vidéo également ki nga xam ne mooy vidéo général Moussa Fall léegi dama leen di tegal aussi ki nga xam ne moom mooy vidéo Antoine jom Antoine Diome ci biir dëkk bi ndax kañ na dëkk bi li wër jumaa ji wala yenn gox yi bari bëri daana am inondation ndox mi di nangu yenn bërëb yeeg yenn kër yi te loolu yàlla def na ci taw feex ba jeex na. li wër jumaa ji fépp daana benn kilomètre diggante. VAR ci biir dëkk bi ndax kañ na dëkk bi li wër jumaa ji wala yenn gox yi ñu bëri daana am inondation ndox mi di nangu yenn bërëb yeeg yenn kër yi te loolu. yàlla def na ci tawféex ba jeex na. xam nga lii mooy masiba naaru laay lii la wolof njaay di ne lu ne fàng kenn du ko jeex ministre de l'intérieur dem taxaw Touba mu ne moom lépp lijjanti nañ ko ci assainissement ci Touba Touba amatul problème am ku génn keneen koo xam ne nee naa leen Touba dafa am dil boo xam ne ay doomu aadama yu jege sëñ bi te sëñ bi yëgu ko de nit ku ne booy wax yow ak sa bàmmeel señ bi yegu ci dara ay nit yu jégué señ bi lol jox nañ leen fi ay milliards yu bare bare bare bare bare ci ay liggéey yu Touba ñu jël ko ñu séddo ko ñom ñett am na ci benn jigen ak ñaari goor yu jégué señ bi lol biñ ko défé ba paré nak dañuy dem nalawal xëru señ bi indi yeneen waxtaan pour nit ñi kenn mu mu xam donc lolou dina ko waxtane ak ay preuve nak ci fan yi di ñew inshallah rabbi pour ma indil ko sénégalais mais gis ngeen Antoine Diome limu genn légui wax mu ne daanaka lépp luy jumaa ji ak lu wër jumaa ji ak ci Touba fépp ñoom lijjanti nañu liy problème mu assainissement bi ba problème yooyu dootu fa amati donc yàlla mi dara tawul malikul mulk wal xayaata yàlla mi sakk asamaan ak suuf yàlla mi nga xam ne moom moo sakk taw sakk euh, euh, raison euh, saison des pluies sakk non saison sèche yàlla moomu moo ñëw fenloo Macky sàll ak gouvernement am àdduna bi yëpp di gis ndax xam nga fii moom ku mu neex man ngaa wax lu la neex ku mu neex mën ngaa génn ne wala respecté wuñu waaw saaga nañu déggu leen benn doomu aadama bu fi yëkkati ay saaga saaga ab sëriñ nee naa leen ñii saaga sëriñ ci ñoom la ñu bokk ndax Ousmane Sonko wax na leen nee na leen boo demee ba ne kilifa diine mooy yow nee nga kilifa ci suñu diine kooku kay boo ko saagee génn nga diine te man damay julli di ñaan yàlla ak lu ma mën a def ci àddina mënuma waxtu julli raw ma c'est pas possible donc du ma toog di xool nit koo xam ne dama koy tuddee man kilifa diine ba pare ñu koy saaga loolu ñun duñ ko def mais du tee nag ay bandi buñ ci raxee gis nga dinaa leen wax dara danger dama leen di wax benn affaire tey gis ngeen ci one million marche keroog ñu ne leen sulli nañu ay néew ay nit sulli nañu ay néew dama leen di wax lii de déglu leen li ma leen di wax ay nit yu wooyee seen bopp ay nitu diine sulli nañu ay néew jàpp perkaal bi nga xam ne moom lañu ñu laxasee néew bi ñu daggee ko ay cent trente et quelques def ko ci ay oto naanukaay ndox tas ko ci ay dëkku diine bëgguma cee wax nag yenn yi wala ñuy ne wala mi ngi attaqué diine bi wala diine bale du ma ko wax amin tarixa bi wala tarixa bale du ko wax mais am nañ ci ay preuve yoo xam ay nit sulli nañu ay néew imaginel jullit buy sulli néew ngir ay liggéey te loolu dafa am ci kër diine yi nit koo xam ne nit borom tur la bis bu ma leen ko tuddaloon ngeen jël seeni dàll génn Sénégal turu nitu diine di sulliloo nit ay néew ay ngeen wax de sulli ay di ba bañ ko def ci ay ndoxu Want to get into web development? Upgrade your business's online presence or land a tech job by creating cool websites? This training will provide you with the expert advice that will make that happen. Get introduced to the web fundamentals necessary to become a web developer. Master the basics, then start creating your website. Start by building its skeleton using HTML. Color it and style it using CSS layouts like Grid and Flexbox and frameworks like Bootstrap. Then make your page's elements smart and functional with JavaScript and DOM. With Git and GitHub, manage and host your projects, and work in collaboration with your fellow web developers. This training is for you if you have no previous knowledge in web development, and it is the foundation you need if you want to master est-ce que yéen dégg li muy wax est-ce que yéen dégg li ñuy wax dëkk nit ñi ay jullit lañu ci ay diine lañu ci ay lañu ci ay lañu ci lañu doomu aadama boobu mu am ci borom maqaama bu mag a mag boo xam ne day sulliloo nit ay néew man lu ma leen wax rek de nee naa leen takk leen ko téere nee naa leen incha allahu rabbi fan yii di ñëw Sénégal bu Ousmane Sonko génnul ñibbi këram wax naa leen ko xam nga junju naa leen nii nee naa leen nit sulli ay néew te loolu moo gën a tuuti ci seeni ay jëf te loolu moo gën a garaaw ci lu doomu aadama war a def ndey am Sène seen non non Ndeye Amy Sène yenn saa yi sa source bi tamit il faut nga may ko tuuti protection mais heure bi dina jot lépp dina génn bu soobee yàlla waaye source yi tamit da da ne rek lii moo am source baa ngi nii kii moo ma ko wax fii la ko defee fële la ko non non non non da lay leer ne source bii am na contact direct ak nit kii te nit kii xamee nañ ko lii ak lii ak lii te wax na lii te am nañu kàddu yi am preuve yi am photo loolu am nañ ci loolu la ñuy toog mais dañuy moytu pour nag am na loo xam ne buñ ko waxee dañuy yàq dañuy euh, sacrifier suñu ay source te loolu tamit dañ koy moytu voilà mais dama leen di ne man garantiral naa leen ne man man ngeen ko bind takk ko téere ne ñoom de bu ñu déggee li ma wax nii dinañu bàyyi Ousmane sunko mu ñibbi këram ndax bu ñu bàyyiwul Ousmane Sonko mu ñibbi këram li ñuy nar a dévoiler li ñuy nar a dévoiler ci fan yi di ñëw du njariñu senegal parce que day indi xeebeel boo xam ne ci réew mi doomu aadama bu dajeetee ak yenn doomu aadama yi ñu wax la seen tur sax wax la seen sant danga leen di tifli ne leen ci piri romb leen parce que kat duñu toog ci ab réew mi ñuy jàpp ay doomu jàmbur yu set yu dul sàcc yu dul fen yu dul luubal yu dul tooñ defuñu dara waxuñu kenn dara ngeen bëgg leen jàpp tëj leen ci biir kaso bi ci ay fen te ñu noppi ne pat déedéet duñ ko def we no gën du daat dama leen di avertiraat man je suis responsable fan yii yëpp maa ngi leen di dànkaafu te ñi ma ciy boole ci dànkaafu bii bokk na ci Marème Faye Sall Soxna Baali Muntaxa Macky Sall mën naa ne sax sëñ Bas bàyyi leen fexe leen Ousmane Sonko mu génn dem këram ci jàmm ñun ñëpp ñu nekk ci jàmm ci Sénégal parce que man tant que Ousmane Sonko ñibbi na këram ci jàmm Ousmane Sonko bokk ci ay élection wu Sénégal néew ma mooy gagné élection wala du ko gagné loolu yàlla nañ ko bàyyi ci loxo yàlla mais tant que Ousmane Sonko mi ngi këram. mu bokk ci ay élection wu Sénégal lépp jaare yoon man Ousmane Tounkara yi daanaka jàpp leen na presque lu dul campagne dootuma ko defati mais nag ngeen jéggal ma maa ngi jéggalu ma ma ma arrière tuuti ak détenus politiques yi ñu jàpp les mille huit cent détenus politiques nañu bàyyi Ousmane Sonko mu ñibbi këram ak mille huit cent détenus politiques yi ñu ñibbi këram yéen ñi bëgg a dégg mu noppi yéen ñi bëgg a gis yéen ñi bëgg a ay milliards pour ma noppi du jar ngeen fay dara zéro déggu leen li ma wax doo leen fay dara damay jàpp sama ñaamur ma jël sama moto di dawal sama sagaru moto di dawal sama sagaru ñaamur dem di di di ànd ak samay xarit di enjoy sama life dellu siwaat ci sama njaboot tuuti bu campagne jotee ma campagne ki war a gagné ay élection gagné Sénégal ne tekk waaye gis nga boo leen bàyyiwul Ousmane Sonko bu dee da ngeen yaakaar ne liñ fi def daaw ba ren ay saaga la wala ay manque de respect la billahi wallahi tallahi lazim day mel ni bébé ci biir village xam nga bébé ci biir village kenn du ko amin ci biir taax kenn du ko dégg mais xam ngeen ay bomb atomique yu explosé ci biir taax la muy yóbbu ci bakkan kenn xamul nu mu toll xam leen ne maag yéen billahi chaque jour dinaa génn ma dévoiler lu garaaw bu ci ëllëg saa bu ma génnee li may dévoiler mooy gën a garaaw la ma dévoiler woon démb bu ci ginnaaw ëllëg saa bu ma génnee li may dévoiler moo gën a garaaw li ma dévoiler woon barki démb te noonu laa koy defee en ordre au fur et à mesure di ngeen dégg fii ay kilifa diine ay kilifa aada yuy am cardiaque di dee comme ay weñ te doo leen comprendre lan moo leen rey parce que la xew Sénégal catastrophique na catastrophique bo xamné ne vraiment waratul sax ñuy déglu yenn doomu adamay ñuy wax am public man ma leen wax li i'm so disgusted man je suis tellement dégoûté que buma déggé yenn nit ñi di wax ci public damay ne Sénégal jaratul dara mais comme ni ma leen ko waxé rek damay top ci hadith bi topp ci yàlla suñu borom ak alquranul karim bim ñu ne doomu aadama bu demee ba gis ay fen ci société nangootu ko wax daanaka presque génn na diine l'islam maa bañ duma génn diine l'islam maa bañ damay toog ci diine bii ci diine bii laa bokk bàyyi leen Ousmane Sonko mu ñibbi këram ngeen bàyyi tous les détenus politiques ñu ñibbi seen kër ndax encore li ma leen wax duma ci dolli benn saaga du ci am waaye dinaa ñëw ne leen diw de lii la def terrain hectare bii néew yii bàmmeel yii cimetière bii alal bii ministre bii nangam bii xale bu góor bii déglu leen li may wax de gis nga dinaa lim di lim di lim di lim ba dinañu yegg foo xam ne dinañu xeebante ci dëkk bi dama leen koy wax de xam leen ne dootuñu nangooti amul benn doomu aadama bu ñuy mayati maqaama walla ak loo ko mën a tuddee pour muy génn ñun doomu aadama yi ngeen di jàpp ay doomu sénégalais yu set wicc yu deful waxuñu ngeen comploter sur leur jàpp leen len ci bir kasso bi ne ken du wax lolu du amati lolu jeex ci senegal on va se battre dinañu xex bayilen Ousmane Sonko mu ñibbi kërëm au plus rapidement possible ngeen bay 1800 détenus politiques yi ñu ñibbi sen kër Macky Sall mom nee ay wéré ko fi déssé liko fi déssé ci ay wéram mu def ko ñu def passation de service képp ku gagné ay élection ñu jël la palais bi ñom ñi wax man ki moy sama président 2024 man gis ngeen ko man solna, ko man nekkuma ci débat you know euh, folklore yoyu ne voilà ñun ñoy créer ay élection ki deful toñul ki musul def dara bon na na dombi wala kuy plan B kuy plan C bu len bol bu len nous ñoo sénégalais nous on est sur notre logique continuons continuer focus Nous continuons à faire. Faire, il faut ngeen nous rek il faut bu mu y yeneen détails gis nga nous ñu inshaAllah, incha nous ñu banditisme bépp wuruj bépp waraj bépp njuuj njaaj dina jeex ci Sénégal man déjà wax naa leen ko man faalewuma lu nit xalaat wala lu nit di wax ndax tey waa kër Alaaji Malick bari naa ci xarit waa kër maam sëñ Touba bari naa ci xarit te incha allahu rabbi dinaa dem ci màggalu Touba bi fii ci Amérique te dinaa dem ci gàmmu maam Alaaji Malick bi bu jotee dem ci yeneen gàmmu yëpp comme d'habitude incha allahu rabbi te kenn mënu ci saala yaay ndeer ndax ñun ay jullit lañu te ci Sénégal lañu bokk dama bokk ci tarixa murit comme ni ma bokkee ci tarixa tiijaan comme ni ma bokkee ci tarixa laayen comme ni ma bokkee ci tarixa Baay Ñas ñaseen le Sénégal est ma famille dem naa sax ba ñenn ñi ay jihadis la ñu décidé pour wooma xam ngeen fi may waxee ki may bu may wax ki may wax bu ko déggee dina xam am na koo xam ne dafa mës a jël sama vidéo yóbbu ko ci ab kilifa ne jihadis yii ñooy wax lii ñooy wax nàngam borom bu déggee junj doy na borom xel man du ma jihadis de ndax amul dara loo xam ne mas mas naa ko cee def dama dinaa maa ngi xeex nag li ma man ci addina pour jullit yi am jàmm pour àdduna bi yëpp am jàmm pour doomu aadama yi à leur totalité am jàmm ngay jullit di juif di catholique di animiste man je m'en fous am jàmm na ñëpp am jàmm jullit la islam laa tànn comme sama diine mais man je suis un musulman modéré Manam, je ne suis pas man comme ñëpp ñu ma xam ñu man la wax dinañ du je ne suis pas très conservatif Manam, duma extrémiste je ne suis pas extrême déedéet ndax xam ngeen euh, sunna dawal moto di dóor ay t-shirtam dóor ay ray bandam di nos xam nga di tux ay boyaram voilà du ma sangara waaye di génn di doxantu comme doomu aadama yëpp je suis moderne voilà man you know am am am a moderate muslim nekkuma ci yenn you know yu diis a diis a diis yi neew ma nag bu ma gënaloon tey vraiment damay bokk ci ña nga xam ne presque damay dëkk ci jàkk di julli ka naafila ka jaamu yàlla rek bu ma gënaloon waaye nag je ne suis pas parfait mais donc euh, je peux vous dire que du ma jihadiste donc yooyu ngeen bëgg a jël di ñu ko sëf di ñu ko fenale di ñu ko sosalee di dem ci kilifa yu mag yi di ko joxe comme ñun naan ay jihadis ak ay nangam man ngeen koo bàyyi loolu nag boo leen xamee bëggee xam ñi ma ko wax ay bëkk nekk ñoo ma ko wax yu jege voilà ñoo may wax loolu ñu ne ma dañuy dem ba ci sëñ bi di ko wan say vidéo naan salafiste yi nangam salafiste yi nangam voilà jihadiste yi pas salafiste jihadiste yi donc complot bi comme ni ma leen ko waxee li jàpp Ousmane Sonko ñun sénégalais yëpp xam nañ ko ndax Ousmane Sonko tey am na senegale yoo xam ne am na sénégalais boo xam ne du ma ne yoo xam ne boo xam ne benn wala ñaar wala ñett yoo xam ne jihadis lañ ko tuddee nee nañu mooy taal dëkk bi mooy yëngal dëkk bi mooy rajaxe fii te ñun képp ku xam te xam Ousmane Sonko xam nañ ne nitu diine la du tooñ du fen du wax waxu safaan dafa respecté suñu ay kilifa di diine di aada respecté suñu diine l'islam bi donc dañuy rafetal comme ni ma leen ko waxee tey ñu ñaan yàlla Sénégal mu am jàmm te mu yàgg am jàmm dama la ne une république mensongère laa leen wax bi ma fi génnee léegi ne leen une république mensongère yëkkati naa benn vidéo bu Antoine jom léegi ma won leen ko ne leen Antoine dégg nañu limu wax ñun ñëpp ñu déggu ba ñu paree ci Antoine